et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. le Sénégal a enregistré son 11e décès lié au Covid-19. Le ministère de la Santé de sociale prie pour le repos de son âme et présente ses à la famille éplorée et à la nation. À ce jour, 1329 cas ont été déclarés positifs, dont 470 guéris, 11 décédés, 1 évacué et donc 847 sous traitement. Le ministère de la Santé et sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle et recommande fortement et particulièrement aux personnes âgées notamment celles souffrant d'une affection chronique, de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières. asalaamaaleykum askan wi maa ngi leen di jottali fii lim bi nga xamante ne am nañ ko ci mbas mi tudd Covid-19 fii ci Sénégal ci talaata tey bii di juróomi fan ci weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak juróom-ñett dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak ñeent moom tudd nañ ko contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi koy saytu te di ko topp ñeent moom la ñuy tuddee yu jógee ci transmission communautaire maanaam mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll te ñu ngi toll ci diggante fii ci Dakar ci Médina fii ci Dakar ci Parcelles Assainies fii ci Dakar ci Géejawaay benn ñoom ñëpp ci nekk benn et ci tuubaa am na benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lal hôpital yi ñu leen di faj juróom fukk ak juróom ci ñoom saytu nañ leen kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu juróomi cas grave ñu nga tëdd fee ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo fa des ñu leen di faj seen wérgu yaram mu ngi ànd ak tal ni ñu leen ko waxee démb Sénégal enregistré waat na fukk ak benn nit yi nga xamante ne ñoo génn àddina ministère de la santé action sociale ànd ak ñëpp di ko jaar ay mbokkam ak askan wi yëpp di ñaan yal na ko yàlla xare àjjana ci bésu tey bii doole ko ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir Sénégal ba léegi ñu ngi toll si junni euh, junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent junni. ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoo ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañ cee génne ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk yi nga xamante ne wër nañu kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji fukk ak benn gaañu nañ ci benn delloo nañ ko ca réew mu mu jóge woon ci loolu mu ngi des fii ñu leen di faj ci lalu hôpital yi juróom téeméer ak ñeent fukk ak ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellooti di ñaax askan wi ñuy gën a dooleel li nga xamante ne mooy fexe ba mbas mi du yokk di wàllante ci suñu dëkk génn fii ba faw ci loolu tamit ñu ngi dolli ne ñi nga xamante ne mooy suñu mag ñi suñu yaay suñu papa yi suñu tante yi li ñuy wax personne âgée ñi nga xamante ne am nañu ba weesu juróom-benn fukki at ñu ne lépp lu mu ñu mën a def ba fexe ba du ñu génn ci kër yi rawatina boo xamante ne ñu ngi doxalee li ñuy wax affection chronique mooy feebar boo xamante ne dafa yàgg ci ñoom wàññi li nga xamante ne ñu ngi koy génn te di gën a def li nga xam ne mooy geste barrière mooy lépp lu nga xamante ne bu ñu ko defee feebar bii du ñëw ci yéen ci ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.